incha allah bu ñu ci maatoo incha rek boo ñëwee am na ñoo xam ne bu ñu ko liggéeyee ba pare yónnee la nga jëfandikoo ko incha allah yàlla dana la defal ndam fekk tamit koo xam ne dañ ko arrêté nga bëgg mu génn incha allah bu ñu jokkoo mën na ci def ay mbir yoo xam ne yàlla dana dana defal ndam incha allah ba mu génn dellu ci ay mbokkam. Euh, waaw alhamdulilah rabbil alamin maanaam njaaloo léegi-léegi euh, rab da koy def léegi-léegi rab daf lay def nga fewal sa bopp wala ngay saxel nekk à chaque nekk ci jigéen yoo xam ne euh, nekku jigéen ju la dagan yëpp incha allah bu ñu ci ma doon rek incha am na ci ay secret bu nga defaree pare joxal nga nga naan ko soo yàlla incha allah njaaloo ma da nga ko bàyyi incha allah rabbi euh, koo xam ne itam yàlla dogal na nga ñu maanaam nga nekk ci benn mbir di ci yëngatu moo xam nga liggéenti mbir mu dëgër wala ñu maa doon incha allah yooyu tamit da nga ci yëngu baax a baax Mhm. Mhm. waaw maanaam jigéen joo xam ne da nga bëgg boroom kër mhm. bu fekkee jigéen jigéen bëgg borom kër waaw xam nga am na jigéen ñoo xam ne dañuy am àndandoo bu ko ku ñëw waxaale ku ñëw di ngoro rek day dem am na ñoo xam ne dañ am lu ñu am loo xam ne sëy bu dugg tas waaye incha yooyu bu ñu ci mën a nekk incha allah ñu ko xoolee pare rek mën la da defal ay solution yoo xam ne incha allah bi da nga yàlla dina defal tawfeex da nga am borom kër te jàmm rek ngay am mhm. waaw jigéen joo xam tamit ba nga borom kër tamit boo ñëwee incha allah tamit moom ci ñu gën a gaaw incha allah lañ koy liggéeyee waaw moom dañ koy liggéey ci caxat lañ koy kii am ñu ko booleel noonu jox la nga nga jëfandikoo ko mhm. Ah, waaw war na mën a jeex nag waaw waaw waaw na mën daal mën nga a waar kon nag góor ñi daal na takk ñeent rek ko defee ji ah, caaxaan wàññiku mhm, su ko daal caaxaan a baax a baax waaw ah. waaw rab li muy yàq ci doomu aadama bari na waaye rab moom euh, Alxuraan mu gën a gaaw ndax rab mën na laa téye lépp la yaakaar mu tas lépp loo dugg mu yàq ko rab li mu def ci nit mu tawoon fii di ko fii ba suba Euh, dinaa naa fi yàgg parce rab moom bari na loo xam ne dina ko da koy da koy def nit incha allah bi ko xam ne rab jàpp na la incha ko xoolee ba xam ne rab la rek incha allah rab bi moom it am nañ ci ay yu ñu ci liggéey yoo xam ne ci xul uxune lañ koy jaarale jox la nga jox la nga ñu jëfandikoo fukk fan ak ñeent soo yàlla incha allah rab bi yàlla dina def tawfiq bu baax a baax a baax a baax a baax mm-hmm. waaw maanaam di wàllum nopp boobu ngay wax maanaam nopp dañ koy def waaye nag ci loo xam ne lu lu kii la daal waaw comme ñaari ñoo xam ne ñu ànd te soppante des na kii ñu daal leen defal nopp pour ñu bëggante daal hmm, waaw nopp nopp nopp la waaw <laughs> waaw loolu moom danañ koy liggéey waaye nag noonu daal la ko daal moom daal faaw ñu a daa xaw efficace bopp daal <laughs> waaw <laughs> daal boo ko defee moom rek mo waaw waaw moom daal da da daa rek waaw waaw bari bari nag yoo xam ne daanaka ay war na sëy yoo xam daanaka dañu ko ëddal ndax am na sëy yoo xam ne yu bare daanaka fukk sëy yu tas daanaka boo xoolee juróom ya wàllu wàllu njaboot daf caa nekk ay insalla yooyu mu ci wax bu ñu ko xoolee insha allah rek daan la jàppale baax a baax même jigéen ñi nga xam ne sax da nga am jafe-jafe ci wàllu wàllu doom nga taxaw mu dañ ciy liggéey bu baax a baax koo xam ne loolu gàllankoor na la insha allah rek bi mu jokkoo yàlla mën naa la defal la defal ba pare insha allah bi moom di nga am doom ci jàmm sa doom benn jafe-jafe waaw ah, te lépp nag te te lépp nag génn génnul alxuraan waaw ah, lépp lépp génnul alxuraan génn génnul sunna di nuyu bu baax ñi nga xam ne sama soppe la te nekk bitim réew di leen siyaaru bare bare di wax ne macha allah maa ngi seen ñaan yi yàlla na ko yàlla ko bokk mhm. te ñaanal bépp murid bu rek maa ngi ñaanal fan yaram ba lépp loo wéetu nga jot ci te eh, yàlla dafa leen tawfeex dafa leen sant daaree ci réew mi di nuyu tamit yu fay ndax masaal ko ñaan tey dama faa sama xol dafa sedd heure mu demee rek sama xol day sedd wallaay parce que sagub lislaam la waaw sagub lislaam te sagub bi bépp jullit la mhm. ak suñu gànn mesel tamit sama soppe la moom dama ko sopp loolu ndeysaan ko ziar bu baax mhm, te yàlla tax ndax dafa bëgg sëñ Tuubaa la ñuy tàggatoo ak yéen waaw bu fekkee ci Dakar moom jamono ji moom ñooy géejawaay waaw bu fekkee ki Touba moom Touba moom ñi ngi sàmm waaw mhm. incha bu mu indi bu ma doon incha allah rabbi daan daan ko jaar ci arxuraan ñaan yàlla suñu borom mu may ñu ndam na arxuraan moom lépp ngi ci amul amul lu mënta saafara ci àddina waaw ngi ci lépp ngi ci wàllu muslaay kaaraange lépp ngi ci lépp loo bëgg mu ngi ci arxuraan waaye dafa am yoon nag ay yoon yoo koy jaar nag bu mën ko xam mhm. waaw waaw euh, tur bi Ñaan